asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu d'abord vraiment directeur général bu nga xam ne ni directeur général bu post bi mooy monsieur Diakhaté di nuyu salarie yëpp di nuyu waa Dakar Dem Dikk tamit tey dañ fi teew parce que dañoo fas yéene signé nañu benn convention diggante ñaar société mooy Dakar Dem Dikk ak La post ginnaaw loolu nag su sunu vraiment son excellence le président Macky benn dafa am benn vision vision boobu la ñu concrétiser tey man ak sama collègue directeur général de la poste euh, convention boobu nag mooy ni que tey Dakar Dem Dikk mu ngi dem ci quatorze régions yi fas yéene dem ci yeneen département yi dem ci Afrique bi donc mun nañu ne tey Dakar Dem Dikk partenaire bu wóor la pour yóbbu indi ay colis yu nga xam ne ni poste bi mu ngi koy def loolu moo tax tey dañ fi teewu signé convention bi wane ni sénégalais yi en tout cas ñaar société yu nga xam ne ni société yu gën a rëy ci Sénégal incha allah fas yéene nañu euh, liggéey et incha allah def tout pour que sénégalais yi gis seen bopp ci ci ñaari sociétés yi incha allah. gis ngeen ni euh, am na ay jours yu nga xam ne ni vraiment euh, société sénégalaise bi am na ay jafe-jafe. mais Dakar Dem Dikk tamit am na ay jafe-jafe xam ne ni vraiment ñu ngi koy ñaw mais ginnaaw loolu euh, gis nañu ne tey Dakar Dem Dikk am na ay problème yu nga xam ne ni sécurité la am na yenn dëkk yu nga xam ne ni tey dañ koy évaluer xoolaat bu baax a baax parce que suñu priorité mooy sécurité d'abord suñu client yi ak sécurité yu nga xam ne ni matériel bu ñuy yóbbu la loolu moo tax ñu ngi toog di waxtaan tous les jours mais incha allah nu mu gën a gaawee dinañ ko def pour nit ñi gis seen bopp te xam naa ni jafe-jafe yu nga ñu am mais gin balaa loolu toujours ñun ci société bi sécurité seen sécurité moo ñu tax a jóg te incha allah dinañ def tout pour répondre ci seen service bi te répondre tamit lu ngeen bëgg parce que lu moom moo ñu tax a jóg vraiment jëriñ ngeen jëf merci beaucoup. waaw wax dëgg yàlla gis nga tous les jours ñu ngi koy évaluer donc ñun suñu yéene tey dakaar Dem Dikk def ko lu nu mu gën a gaawee. donc incha allah di d'ici quelques jours dinañ ko évaluer dinañ continuer évaluer gis naa ni ah tension bi mu ngi wàcc te incha allah lu ñu mën a def rek dinañ ko def parce que Dakar Dem Dikk loolu moo tax loolu moo ñu tax a jóg te dinañ ko def incha allah euh, ginnaaw loolu xam nga évaluation mënoo ko wax parce que su ma xamoon luy xew suba wax dëgg yàlla tey dinaa dox. mais xaw ma lu muy da demee donc loolu moo tax tey tous les jours ñu ngi toutes les heures ñu ngi évaluer parce que il faut que ñu xam ne nii Dakar Dem Dikk tamit tous les jours war nañu am ay départ te départ yooyu su employé ñu ngi toog di xaar pour ñu def ko parce que suñ ko deful tamit entreprise des déjà am na ay jafe-jafe suñ ko continuer jafe-jafe dina gën a yokk donc incha allah moom sénégalais nañu xam ne ni ñu nga xam ne ni ñu ngi dëkk ci euh, gox yooyu ñu xam ne ni incha allah Dakar Dem Dikk mu ngi seen wet te dina nekk seen wet incha allah Louga